Nous sommes sant bu baax ñu national du fonds européen de développement qui est le ministère des finances et du budget Nous sommes sant bu baax di partenaire financier et technique de l'Union européenne qui mi le projet parce que nous nga dans le contexte de l'atelier, avec la société civile qui joue un rôle important dans le développement de bi euh, atelier bi aussi ñu ko tenir ci moment bu important parce que gouvernement bi état bi mu ngi préparer document bi nga xamni ci la ci la ñu fas sukkandiku pour pour pour doxal dëkk bi pour pour satisfaire population sénégalaise bi ci li ñuy xaar ci ci nguur gu bees gi accompagner aussi les partenaires accompagner parties prenantes yëpp aussi ba nga xamni ne dëkk bi attente bi population bi am dinañ ko jot ci moment biñ ko doon xaar aussi incha nañ leen fas yéenee gunge parce que société civile ak état quand même sen andando dafa wara dafa wara a rafet te ñu ngi def ay djégo ñom aussi sen côté ñu ngi def ay djégo pour ku nekk sa rôle nga apporter sa contribution parce que day nekk njariñ rek ci population bi.